أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذريتا من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعطوني بسم الله الرحمن الرحيم allahumma bi aqwati laahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa farriu biathi lamda wa basiru biha wa jamia ahibaayi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama آمين يا رب العالمين عتاب بالمملكة الأوتان باغنا سليمنا asalaamaaleykum. tey jiital ci nuyu bi. tey jiital ci nuyoo bi. ni ñu ko baaxoo defee rek. ni ñu ko baaxoo defe sunu kilifa. tey kilifa ak yoon wépp. tey kilifa ak yoon wépp. Cheikh Mouhamadul Mountakha. Cheikh Mouhamadul ko ñaanal. di ko ñaanal. borom bàyyi ko fi. sunu borom bàyyi ko fi. dolli ko ak wér. bali mu yéene liggéeyal Sëriñ Touba. yéene ko liggéeyal lislaam yàlla may ko wér ba mu àggale ko ni mu ko bëggee te di ko ñaanal sunu kilifa sëriñ Cheikh li mu yéene ci liggéeyal waajuram yéene koo liggéeyal sëriñ Touba yéene koo liggéeyal lislaam sunu borom bàyyi ko fi defal ko ak wér ba mu àggale li yéeneem yëpp. waaw ah, tey ndokkeel jullit yëpp. ñi ngi ndokkeel jullit ñëpp. ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew. di leen ndokkeel ci bisu bi. Ah, tey ñaan jàmm ci àdduna bi yëpp. di ko njëkkee ci réew mi ñu dëkkee. Ah, di ko jàllale ci réew yi ñu gën a jege mooy sous bi. ba mu daj àdduna bi yëpp. ndax dafa mel ni àdduna bi jafe-jafe yi bari na lool. suñu réew mi ci lu ñu suñu réew mi nga xam li ñu jógee lu yàggut. waaye ginnaaw yàlla def na jàmm am ci ba lépp jàll. waaye mel na loolu moom ñuy wax loolu dafa mel ni mooy li xew ci sous-région bi. réew mooy réew yi ñuy tuddee CEDEAO. ak li koy jël ak yeneen réew na ne ci ak ci réew yi nga xam ne dañ cee bokkoon. mu mel ne tam mu mel ni dafa am ay jafe-jafe ci seen diggante. boo toppee ah, boo toppee xew-xew yooyu nag mooy dem ba ci sarxul awsat. ci diggante Israël ak Palestine. ci diggante dem na ba jàll sax weesu ko mel ne ak yeneen yi jafe-jafe yooyu it it ba yaman diggante ak Irak dégg na nekk ci diggante yaman fi bahrul ci diggante yaman li xew ci bahrul ahmar ak ci al bahrul abyad al mutawassit mer rouge ak méditerranée mooy mer rouge ak méditerranée boo moo dem ba xew-xew yooyu it moo dem ba diggante Ukraine ak riche riche waaye xoolee day mel waaye xew-xew yooyu yëpp ci xew ci àdduna buñ ko xoolee mooy ni àdduna mooy day mel na ni àdduna baaxoo doxe réew am doole bëgg a yokk réew yi am doole bëgg a yokk seen doole moo tax léeg-léeg ñi gën a néew doole léeg-léeg ñu gën moo tax léeg-léeg ñi gën a néew doole loolu jafe-jafe yooyu di metti ci ñoom waaw ah, kon ci nag situation bu mel noonu kon buñ tollee ci situation bu mel noonu àdduna toll foofu ci àdduna toll foofu waxtaan tey ñi waxtaanu taw ñi ngi ko bëgg a jëmale ci ah, maanaam topp bànneex nit topp bànneex mooy nit di moytu topp bànneexam ah. borom wax na sunu borom wax na ko ci alquranul karim. ci ay ayet yu bëree bëri. yu wuute. te aaya bu nekk nam koy waxee. loolu lay loolu loolu lay sabab day mel ne topp bànneex mën naa jural nit ay musib la muy sabab. aaya nam koy waxee. aaya bu ne ni ko sunu borom di waxee. dana ñëw ci beneen aaya waxe ko neneen nu bokkut ni mu ko waxee woon. ci loo xam ne mën ci loo xam ne topp bànneex mën na koo indi ci ay safaan bokk na ci sunu borom li wax na ya daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi ardi faxkum bayna annaasi bil xaq faxkum bayna annaasi bil xaqi wala tattabi al wala tattabi al hawa فيضلك عن سبيل الله فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب mooy yonent yàlla daawuda sunu borom da ne ko nga wattandiku topp sa bànneex da ngay àtte nit ñi ci dëgg. nit ñi ci dëgg. te bañ cee topp sa bànneex. te bañ cee topp sa bànneex. kat boo toppee sa bànneex. ndax topp sa bànneex. lam li muy indi mooy day day tax nga réere yoonu yàlla. da ku ko def da ngay réeral yoon da ngay réere yoonu yàlla. te yàlla wi te képp koo xam ne réere nga yoonu yàlla wi lam lay jural mooy mbugalum ëllëg lam lay jural mooy mbugalum ëllëg ndax dangaa fàtte woon ne bis penc dana ñëw ndax dangaa fàtte woon ne bis dana ñëw waaw falaa tattabi'il beneen aaya sunu boroom wax ne falaa tattabi'il hawaa an ta'dilu na ngeen mooytoo topp seen bànneex ba man leen a jural ñàkk maandu te ñu waxaat ne wala yuttaba'al haqqu wa man fiihinna ci beneen aaya sunu borom wax ne wala yuttaba'al haqqu ahwaa'ahum lafasadatis samaawaatu wal ardu wa man fiihinna nee na bu ngeen toppee seen bànneex mu ne bu ngeen seen bànneex sunu borom bu toppoon ñenn ci seen bëgg bànneex na kon àdduna bépp dana yàqu kon àdduna bépp dana yàqu asamaan ak suuf ak suuf lu nekk ci ak lépp lu nekk ci asamaan ak suuf wa hawaahu sunu borom dellu na dafa mel dafa mel ne sunu borom day laaj naan xanaa gisoo ki nga xam ne dafa topp bànneexam yàllaam def bànneexam def day mel ne kooku day dem ba jël yàllaam def ko mooy bànneexam toujours xanaa ki nga xam ne dafa jël bànneexam def ko mu yàlla. ki nga xam ne dafa jël bànneexam def ko mu yàlla. te kat mu koy def. te bi mu koy def. ak réer du xam na lu baax xam na lu safaan. moo tax muy def waaye xam na ab lu baax xam na ab safaan. kon loolu nag boo ko xoolee. kon loolu lépp buñ ko xoolee. ci ci ne ni koy waxee. ko na ko waxee ak lu ci nekk sunu borom ni mu ko waxee ak li muy mën a jur. loolu day mel daanaka. ndax loolu mën a loo xam ne mën naa yàq lépp loo xam ne nag mën naa yàq asamaan ak suuf. yàlla tëralee rek la àdduna mooy ni yàlla tëralee àdduna. ci nisaamul aadam yi ni yàlla tëralee doxalinu àdduna. Hmm. loolu lu ko mën a yàq loolu. lépp lu ko mën a yàq. wala mu dem ba sax ba yóbbu nit ki mu mel ni mën na ko tax a bokkaale. wala lépp looy yóbbu nit ki lu lu tax mu mën a bokkaale suñu borom. loolu mu yaakaar naa lu ko gën a lu ko gën a lu ko gën kon loolu lu ko gën a rëy gën ko wóor amul. te yonent bi sallallahu alayhi wax ne laa salaatu salaam wax ne laa yuminu ahadukum. xataa yakuna hawaahu tabian limaa jitu bihi. xataa nee na nit du du mën a mat mukk. li feeg li feeg demul ba bànnee xam topp li ma andi. ma wama ataykum rasulu fa xusuhu loolu mooy wama ataykum rasulu fa xusuhu wama nahakum anhu fantahu ba tey alayhi salaatu wasalaam waxaat ne wa amal muhlikaat salaat wa amal muhlikaat salaasatun fa shuhun mutaaun fa shuhun mutaaun wa hawan muttabaun wa hawan muttabaun wa ijaabul mar'i bi nafsihi wa ijaabul mar'i bi nafsihi waaw fa shuhun mutaaun may wala bëggee kon bokk na ci yi alaka ñett yi mooy bëggee gu ëpp wala nay waxoon murtaba ak topp bànneex bokk na ci li alak nit wa ajabul mar bi nafsi ak nit koo xam ne dafa yéem boppam kon nag eh, wax nañ wax nañ mel ne ne topp bakkan topp bànneexu bakkan li muy li muy jural nit ki. li ci yàlla wax. li ci sunu borom tabaaraka wa taala wax. ak lenn li ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax. waaye nag ndax bakkan moom dëgg ndax bànneex. waaye ndax bànneex nag. daa am moom mooy mooy yëngal boppam wala daa am lu koy yëngal. bànneex ndax dafa yëngal boppam wala dafa am lu koy yëngal. waaw dafa mel ni bànneex. dafa mel ni bànneexu nit ki. bakkan moo koy mooy mel ne lu ko soxla. bànneex bakkan moo koy soxla. doon wax ne wa amma man xaafa maqaama a moo tax sunu borom wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa fa innal jannata hiya al mawa day mel nafsu ci boppam koy day mel ne nafsul insaan ba bakkanu nit mooy xëcc moo mel daal mooy soxla bànneex moo fi mel ne mooy soxla bànneex day mel ne daal bu doon bakkan bànneex moo day mel ne bakkan bànneex moo koy suuxat waaw kon am ne bari na yeneen aaya yoo xam ne sunu borom da ciy lëkkale diggante ak nafs wala hawa. bànneex ak bakkan. illa dhanna wa ma tahwa yattabi'una illa ma tahwa al-anfus kon wanaha nafsu anil hawa kon sunu borom bu dee wanaha nafsu anil hawa am na benn waykat bu wax ne. li hawan nufuusi. li hawan nufuusi. sariratun. sariratun. laa tu'lamu. laa tu'lamu. aradan xiltu anni aslamu. day mel ni bakkan bi nga xam mooy mel ni bakkan bi nga xam ne mooy sa. mooy bi nga xam bi nga xam ne moom la ñuy bañ. mooy bay mel ni bi waykat bi wax. nee na bakkan bànneex bi ci nekk. mel na daal mbuut la day mel ne loo xam ne lu kenn mënta xam. day mel ne lu kenn mënta xam la. day mel ne buy ñëw ci yow day jékki-jékki rek agsi. xam fu mu jaar. te day mel day ne doo xam fu mu lay jaar. mel ne daal moom bi loolu amee rek mu mel ne moom jébbal na nangu na ànd naa bakkanam ci day mel ne kooku nag day mel day jébbalu ci bakkanam ànd ak. wa xiltu anni aslamu mooy koo xam ne daal topp bànneexam ba mel ne dafa jébbalu ci bànneexu bakkan jébbalu ci bànneexam waaye bu ñu xoolee nag sëriñ Touba li mu ci wax alayhi salaatu radiyallahu moo tax sunu yaakaar moo tax sunu yaakaar Serigne Touba radiyallahu anhu Cheikhuna al na ci moom it ni mën a def ba ba loole ba loole bañ a am mooy safaanu mooy safaanu kër. moom ni mu ni mu mën a def ba loolu bañ a am mooy safaanu ku njëkk yi mooy bañ a topp bànneexam. jaawartu bil furqaani rabbiyal muin. ni mu wax ne jaawartu bil furqaani rabbiyal muin. malaktu nafsiya wa zaxzaxtu lain. axasu min dunyaahu zaadi lil jinaan. axasu min dunyaahu zaadi lil jinaan. wan qaada lil hawaa. wan qaada lil hawaa. wali safal janaan. wali safal janaan. waaw sëriñ bi nee na foofu. dëkkaale na ak alxuraan. dafa dëkkaale ak alxuraan. waaw ah, léegi noonu yi nga xam ne mooy ñeenti noonu. noonu yi nga xam ne mooy ñeenti noonu noonu doomu aadama yi. mooy bakkan. mooy bakkan. ak adduna. ak adduna. ak bànneex. ak bànneex. ak seytaane. ak seytaane. ku ci xam na wax na na muy jëflanteeg ku ci nekk sëriñ bi wax na na mu jëflanteeg moom. nee na bu dee bakkanam. bu dee bakkanam. moom moo moom. moom bakkanam. fa mu bëgg fa mu bëgg a jëm fa mu bëgg a jëm bakkanam fa lay a jëme bakkanam foofu la koy jëme waaye bakkanam du ko mën a jiital bu dee iblis nag moom dee iblis nag moom seytaan mu séparé woon moom defut ak moom sëriñ bi moom nee na séparé naak iblis defut ak moom nen jëmuta maslaa moom du jëmuta ndax du ko ñu du ko ñu maslaante du moom dépp du jëflanteek moom sunu borom musal na ko ci moom nee na àdduna nag mu ne àdduna nag def na ko mu yóbbale muy àjjana def na ko mu yóbbalu aljanaam bànneexam it mu ne ne wommatu na dafa mel ni bànneexu bànneexam it dafa wommatu ci moom topp ko kon day mel ne xataa yakuna tabian hawa tabian li ma jiitu xoolee li yonente bi wax ne xataa yakuna hawa tabian li ma jiitu bi kon sëriñ bi fay ba tey dafa waxaat ne wa annani lastu ara siwaaka. wa annani lastu ara siwaaka. yaa jaacilan hawaaya fi hawaaka. yaa jaacilan hawaaya fi hawaaka. waaw ginnaaw yéen dañoo wax dafa waxoon ne. ginnaaw sallallahu alayhi wa ne. nee na ak ngëm ngëm nit du mat li fekk topp li indi. nit ngëmam du mën a mat li fekk bànneexam topput lim mu andi li mu moo yonte moo tax sëriñ bi ñëw ne moom yaa jaay na hawaay fi hawaaka sëriñ bi moom ay bànneexam ak i bëgg-bëggam dëppoo naak li sunu borom bëgg moo xam ne ak billaahi inni li nabi abadan xillun wa xibbun wa ma yaabaahu aabaahu wa ma aabaahu yaabaahu sëriñ bi dafa giñ ci sunu boroom ne. maanaam def na yonent bi muy ab ab muy ab xaritam akub soppeem. ba moom lu bañ. ba moom lépp lu yonent bi bañ. lépp lu mu bañ sëriñ moom sëriñ bi lépp lu mu bañ rekk yonent bi bañ na loolu. mu ne waat nabiyuna al mustafa xayrul wara xaradi fi kulli shay'in wa ma yaabaahu abaahu su sëriñ bi nee na yonente bi mooy xemmem téefam lépp loo xam ne bañ bi ko bañ na ko man la lépp ne bi bañ na ko loolu la sëriñ bi bañ kon nag kon li ñu wax ci topp bànneex ginnaaw waxtu wi xat na. ginnaaw waxtu wi nag xat na. tënkal nañ leen ci dara rek. nañ leen ci dara rek. ba xam leen li mën topp bànneex li mën a andil nit ki. day tax topp bànneex dana tax nit ki réere yoonu yàlla. day day maandu. topp bànneex dana tax nit ki du maandu. mën naa yàq nisaamul alami. topp bànneex dana yàq nisaamul alami mooy doxin wi yàlla tërali àdduna. nit ki di jaamu bànneex am ni mu jaamu naa dem ba it nit ki di jaamu bànnee xam na mu waroon a jaamoo sunu borom. wax nañ leen it ki nga xam ne ah, mooy bakkan bi mooy topp bànneex wax na it ni ñu bëgg nga jëflante sa bakkan mooy nga bañ a topp sa bànneex. wax nañ leen ki topp bànneexam. mooy ki nga xam ne dafa topp bànneexam ba mel ne daal jébbal boppam bànneexam jébbalu ci bànneexam. bànneexam. ak it ki nga xam ne moom bànneexam moo ko topp waaye toppul bànneexam mooy sëriñ bi. kon nag nañu jéem ci sëriñ bi ci loolu. te moytu leneen li mooy topp sa bànneex ba mel ne danga ngaa jébbali ci moom. ñu dégg na nu sunu boroom defal ñu dégg li mu wax te jëfe ko. te yombalal ko. te yombalal ñu ko. te yombalanu jëf la jëf gi yomb yombalanu jëfal ñu jëfe li mu digle te yombalanu nit ñu bàyyi li mu tere ah, ñu ngi ñaanal ñu yàgg fekke bis bi te di ko def ni mu ko bëggee te mu nangul ñu ko ah, delluwaat di nuyuwaat ñëpp delluwaat rek di nuyuwaat ñëpp ah, ngeen jëf كان عند آل بدر ودر خادني المختار ما لقادا من ربي بربي فانقادا عبادتي لمن ما تتونا وخاد لي بالمنتخى المتونا رسولنا أحمد قد أرى بربي كلي فاختار من خاد من خادت بي ليلكم بالمنتقى الذي